matukaay yi te képp koo xam ne yaa ngi dugg ci bërëb bi na nga takk masque bala ngay dugg na nga raxasu ndax woppi coronavirus jamono ji ni mi lawee ci réew mi bari na te sëriñ bi nee na mbooleem loo xam ne ay matukaay la ak ay digle yoo xam ne waa kër docteur daan nañu koy wax nañu ko jëfee woppi coronavirus ni mi lawee ci réewum Sénégal bëri na ak ñi nga xam ne ñoo ciy faatu ndax réew mi jamono ji lu jege juróomi téeméeri nit ñoo xam ne ñàkk nañu ci seen bakkan Sénégal léegi mu yegg fa ndax ni ki démb am na juróom-ñaar ñoo xam ne faatu nañ ci lim bi toll na ci ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn yoo xam ne faatu nañu ci yéenekaay gi nee na benn fan ci weeru janvier jàpp fukki fan ak ñeent ci weeru janvier lu toll si juróom-ñett fukk ak juróom benn ci ay nit ñoo xam ne faatu nañ ci woppi coronavirus yéenekaay gi di enquête nee na mbas mi di coronavirus fi nga xam ne fi la mbir mi gën a ñaay jamono ji mooy ci diwaanu Touba maanaam situation bu compliqué maanaam bu explosive moo fa am jamono ji centre ya fees nañu dell ña nga xam ne na ñooy personnel de santé ba ji sax mbir mi dalee na commencé jaaxal ndiki démb lu toll si ñaar fukk ak juróom ci ay cas communautaire daanu ñu ko fay la nga xam ne moo gën waar ci mbir mi bëri na fa ñoo xam ne li nga xam ne mooy mesure barrières yi wàcce wuñu ak moom yéen kaay gi di réew mi quotidien libération l'observateur enquête source a xëy na ci ki nga xam ne nee na ab yónnante la maanaam ab prophète di Daouda Ba mi nga xam ne moo nekkoon ca diwaanu Kolda ci village bii ñuy wax Sarengagne ni ki démb teg nañu ko loxo waa gendarmerie ñoo ko jàpp moom Daouda Ba moomee naka dafa terrorisé woon maanaam teg fi na ju boobu nga xam ne fa la nekkoon ak ñi nga xam ne ñoo ko wër la nga xam ne la ñu ko toppee mooy yàkkataan mu ndaw ndax ka nga xam ne dañoo jàpp ne na ci kaw ma xale bu jigéen boobee ay atam toll na ci fukki at ak ñeent détournement de mineur yéen a kaay gi délibération ak enquête nee na Daouda Ba moomee soo moytuwule musiba ma bu kumba gu dina ko daal ndax ni ki démb ginnaaw bi ñu ko dégloo ba pare dañu ko gardaaw yi yéen a kaay gii di direct xëy na ci policier bi nga xam ne dañu ko ràjjee yéen a kaay gi la mu gis nee na dàq gi ñu ko dàq ci police bi loolee lu doy waar la yéen a kaay gi xëy samp ab laaj ne loolee stigmatisation la wala u antimouridisme la yéen a kaay gi nee na ay njiitu réew ay autorité militaire française ak sénégalaise yu bare bari gis nañu leen maanaam ci sunu kilifa dine yi moo xam tubaala moo xam Tiwaawoon la moo xam Medina Baay la moo xam Yoof la ñu sukk fa di sujjoot lan moo tax ñu mën a dàq ki nga xam ne maanaam mooy policier bi yéenekaay gi di Direct News nee na fii ci Sénégal est-ce que am na lu ëpp solo gëm-gëm yi nga xam ne gëm nañu ko sunu kilifa diine yi bu doon ab Ablaye Diop mi nga xam ne commissaire de police la ay jamono mu nekkoon directeur sécurité publique maanaam bu doon moom jamono ji moo yore mbir yi du dàq bi loolee gis yi nu bi di la ndax nee na Ablaye Diop moomee taalibe Serigne Babacar Sy bu ràññee ko woon lool la yéen a gi di réew mi quotidien ak la turbine nee na policier boobu nga xam ne ràjjee nañ ko si police sub Sénégal Bougane Gueye Dany daal na koy recruter jox ko ñetti weer yoo xam ne congé lay dem noppalu te dañu koy fay yéen a gi di réew mi quotidien nee na li xew ci réew mi doy na waar ndax dafa am koo xam ne dafa jël paaka rey jabaram ca diwaanu Grand Yoff yéen a kaay gi di la turbine nee na ko Alimatu Diallo moomee la ñu jàmmate waaye nag déewul ki nga xam ne mooy borom këram di Mamadou Lamarana Diallo jamono ji ma ngi ci hôpital psychiatrique bu Thiaroye ñuy xool di càmbar li nga xam ne mooy am xelam yéenekaay gi de la Tribune xëy na ci mburu ak soow nee ma Idi ak Macky yéenekaay gi nee na ñaar ñi li ñu bëgg maanaam mooy jaxase réew mi ak parti APR ñu nekk benn yéenekaay gi de Les ko xëy si jaari Sow moom ak enquête nee na nag est-ce que nag jaari Sow mi maanaam waxuñu woon boppam ci livre bi nga xam ne jaari Sow bindoon na ko ndax moom jaari Sow dafa bindoon benn livre boo xam ne na mu ko tuddee woon mooy sous le visage d'un ange doon sa benn xale bu jigéen bu tudd Alina xale bu jigéen boobe nag dafa maar ci ak dundam maar na jamais connaître l'amour marre de ne jamais être objet de reconnaissance et de fierté maanaam journal bi la mu gis daal mooy jaari soo moom waxoon nañu boppam jaare ko nag ci ab xale bu jigéen bu tudd Aline ci ab livre boo xam ne bindoon na ko ndax xale bu jigéen boobee ak histoire bi nga xam ne moo ca nekk mooy xale bu jigéen bu égoïste waaye nag boo xam ne manipulatrice la yéen kaay gi di stade bàyyi mbir moomee wax ci mbiru tàggat yaram ak super coupe d'Espagne niki démb Atlético Bilbao moo gagné Real Madrid yàqal na gaay yi nga xam ne ñoo ngi doon xalaat ab final diggante Real Madrid ak FC mu nekk ab classique